non gars yi nag ballon d'or bi bay bu ñu yëkkati ko jox ko Vinicius Junior ndax yéen nag Euh, ci siibur gi di ngeen xam ne lii may wax nag dëgg la bokk na ci footballkat yi gën a xarañ ci àdduna wala ngal kàpp gars yi bala maa yaatal li leen di information yi ak lépp li nga xam ne am na ci li nga xam ne daanaka mooy boobee mat yow mii di am merengue wala doonoo ko ak koo man di doon te bëgg football abonné ci seen bi soo abonné pare ñu avancé yow mi abonné pare muy sama gars yi coppati leen ndànk j'aime yi partagé bi ñu dem mais abonnement bu fekkente ne révo kooku TV sport gars yi nag damay commencer nag ci li nga xam ne daanaka mooy boobee match ma commencé ko na dëgg-dëgg nag ak jàmbaari fàkk tëdd ji gars yi ndikit yow yi ni si siñoor maanaam baax na ci Real Madrid Mbappé nag ak jëndam du ma ni baaxul mais nag comme merengue yu bari dañu bëggoon mu ñëw waaye wax dëgg yàlla dana poser tuuti problème rek bu fekkente ni Carlo Ancelotti ragal naa jël risque ndax il faut mu jël risque nag bu ñu xoolee première mi-temps bi football loo wala mu football nga xam ne daanaka moo nekk Vinicius Junior wala Mbappé ndax lool comme day indi jafe-jafe il faut mu football loo ñoom ñaar kenn Bellingham mën a nekk ci seen kanam loolee classement bu baax bi Mbappé nag plus que peur que de mal ñu ko loolee rek ci première mi ab ak fël xooku bu réeraloon mais dellusiwaat na ci jàmm mais jàmbari fakk tëdd ci gars yi Vinicius ñoon match bi mais Vinicius est-ce que tey nekkul woon li nga xam ne mooy Santiago Bernabéu gars yi maa ngi dégg ci commentaire yu bëree bëri ñuy encens Messi euh, ki nga xam ne moo nekk Vinicius ñoon mais kenn du kenn du kenn du Edouard Camavinga mais ndikate yoo deuxième mi-temps maanaam kenn du ko laal mais ndikate yoo tamit deuxième mi-temps Santiago Bernabéu képp ku ko dul xalaat yaa ngi ci erreur presque jàpp naa ni loolu sax moo nekk ci titre li leen di ah, bile journal deuxième mi-temps ah, li nga xam ne daanaka moo nekk Santiago Bernabéu képp ku ko dul xalaat yaa ngi ci erreur mais Vinicius ba tey damay des ci moom bala ma avance ci li nga xam ne mooy sama njàngatub tey jàngat naa ni bu njëkk tey ah, bu fekkentee ni xooluma li nga xam ne moo nekk information yu baax a baax tey la doon bu njëkk fële ci Santiago Bernabéu mu dugal ci match bu Ligue des Champions maanaam lu toll ci ñetti bit di ab triplé xam naa ni tamit vérifié wu ma li la di maanaam l'homme di match waaye amul benn werante man sama l'homme di match tey jii ci sama njàngat ci tic-tac de jeu yi ma def déplacement yi ak li nga xam ne mooy ballon yi mu touché ak bal yi mu dugal ak gondaandaat gi mu def Vinicius Junior mooy sama l'homme di match peut-être ngeen vérifié bu baax a baax mais man sama l'homme di match ci sama njàngat Vinicius Junior mooy footballkat bi gënoon a xarañ tey jii ci terrain bi Mbappé nag jàmbaar la bu baax a baax kenn du ko sànni ay doj mais na gën a maanaam Eh, sëmbaxloo bi dugg ci biir tamit gën a rayante ndax Vinicius Junior xam naa ne dangaram yaakaar naa ne fi mu toll nii benn werante ci taxawaay bi mu am ah, fële ca merengue ya mais Lucas Vazquez moom it ab na ni dugal na ab bit gaa yi tey ñëpp a dox ci deuxième li la di mi-temps bi nga gis wi Lucas Vazquez moom it dugal na bit boo xam ne sax gis ngeen ni moom Lucas Vazquez mi ngi ko dugal daanaka ci ah, presque match bi bi mu avancé bay bëgg a fin ah, loolu la dugal match boobe ndax maa ngi gis ni juróom-ñett fukki minute ak daanaka ñett laa gis ni moom la dugal euh, but boobee nga xam ne am na solo bu baax a baax mais kenn du Antonio Rudiger défenseur central bi nga xam ne moom it lu tege ci tànk yi bopp beeg lépp day fër fër di naaw mais nag jàmbaari fàkkatati ji moo dugal ñetti but yi moo tax équipe bii di Real am lu toll ci euh, juróomi but gaa yaa ngi fàtte ñaari but yi nga xam ne équipe bii di maanaam Borussia Dortmund dugal na ko nee naa ko woon tey ci suba ci info matinal il faut ñu def ndànk bala leen a merengee boros euh, boroset ndax xam naa ne merengee xiif nañ ay bit juróom-benn fukki minute ak ñaar ni ma ko waxee moom mii di Vinicius euh, euh, Junior euh, fa la njëkk a taal kër gi ñëwaat quatre-vingt-cinquième minute de minute ñëw yarax dugalaat équipe bii nag di Paris Saint-Germain jafe na fi mu toll mu amub victoire fële nga xam ne mooy Parc des Princes dip stade dam tey jii yaakaar naa ni dafa téemboowaat ci match bi nga xam ne doon na ko football Paris Saint-Germain dara doxatul xam naa ne bu coow baree ci ñoom bari ci Mbappé waaye coow li ci jóm la gën a bon ndax mii di équipe bu kile di euh, maanaam euh, euh, bi nga xam ne mooy Colomboani waaye nag damay dellu si fii ci Espagne match bi war a am suba ak jàmm la 23 octobre bi bu 19 ci canal plus sport 2 mi ngi dox ci diggante équipe bi la di Barcelone gars yi jàmbaari fàkkatati a daje ak mooy Bayern Munich ma indi la ñaare tête de liste naatable woon naa ko tey yi ci info di leen xamal ni maanaam ñoom ñaar kat ku ma ci doon tànnal ki nga xam ne moo ci ëpp wërsëgu guddi yi ñu toll damay dem ci Roberto Lewandowski donte tamit xeebu ma Harry Kane ay déplacement am ak kii bitam waaye nag ay camp gaaw ci lool lool fi mu toll nii mi ngi ci loxo ki nga xam ne moo nekk ah, Barcelone bi kon tey jii ñoom ñaar ah, seen match du yomb benn yoon seen match match la boo xam ni ah, amul benn werante dana nekk match bu cuqur mbuuj mais wattaay la ci classico bi nga xam ne reyal na mu ko préparé fi mu toll jaar na yoon gars yi dégg jàmm taw féex ak tey siir abonnement yi ci seen bi bu leen ko fàtte benn yoon jërë ngeen jëf